ki nga xam ne dañ laa jox jiw yow nga daan ko jël di ko jëlaat ñu jox la ko ren nga bëgg a xupp ministre rek agriculture parce que yow da ngay santaas nit ñi ministère boo dem santaas ko Macky Sall lii Macky Sall laa bu la joxul xaalis dégg nga wëlbatiku dalaat ca ko ministère ba soo bëggee santaas ministre bi ministère bu nekk nga dugg dinaan ko Macky Sall dina la dimbale Macky Sall dina la fal dina la nangam su kooku joxewul dara nga commencé di ko santaas publiquement ci ci biir kanam nit ñi xam nga loolu rafetul loolu moo doonul yoon tey ku fi jël wal di dem Nigéria CEDEAO ba nga nekk Macky sàll moo la fa teg ku fi nekk député Macky sàll moo la fa teg fii lañ nekkoon jotee ak Ablaye Wade mu dàq leen dégg nga ñu nekk di muñ di xeex am Macky di leen jox ay moyens ba yàlla def ñu dellu siwaat nekkaat ay député Macky xeex ba at boobu passé lépp lu ñu leen ameloon dañ leen koo fay ay cent et quelques millions kon Macky moo leen jox loolu ba fi mu nekk ne Macky leen yor chantage nag dafa jeex ci réew mi chantage dafa jeex ci réew mi chantage moo fi amatul njëriñ amatu fi yëg kenn mënatu fee jaaxal kenn li am solo nag ñun dañuy sant Macky Sall di ko gërëm parce que Macky programme am bi nga xam ne moom la diggee woon 2008 2009 2010 2011 ba 2012 mu falu programme boobu la def ci mandaam bi passé lépp lu mu diggee woon parce que diggewu ko woon réew mi ñoo ko ko laajoon dafa wër Sénégal ba mu daj euh, weer bu nekk da koy am ci raison. lañ ko laajoon ak lam fa diggoon daf ko defoon ci ay ordinateur ak i machine teg ko fi bàyyi ko fi dégg nga kon loolu la liggéey ba mu jeex fii ne mandat bi mu jëm bëggul wax fii ba mandat bii di jeexee programme bi nga xam ne moom la commencé 2018 2019 2020 ba bi mandat bi jeexee loolu la bëgg liggéey ci mandat am kon kooku fas na yéene liggéey lim fi def bëri na lool mën nañ koo lim mënuñ koo lim parce tey soo gisee. éli la yi tey acte trois moom moo ko fi indi ba mu ko fi indee gis nañ li mu jëriñ pont yi ñu doon ñaan ci àll bi tal yi ñu doon ñaan ci àll bi yëpp booba falogul daf ko diggee woon daf ko defar tey lépp lu pare fi ne daf ko diggee woon 2008 programme mu 2008 la woon 2009 ba 2010 ba 2012 fi mu ne nii nag programme mu mandat bi ci lañ dugg nii liggéey lañ bëgg waaye bëgguñu wax loolu ci lañ nekk dañuy gërëm Macky Sall di ko sant waaye du caagan pour ku koy santaas. dama leen ne Macky ba mu nekkee directeur énergie nekk ministre énergie nekk ministre de l'intérieur nekk ministre premier ministre nekk président assemblée nationale ña mu doon àndal ña àndoon ak moom yëpp fàq dem daf leen a jox ay bureau jox leen oto di leen jox moyen même bi nga xamee ne fal nañ Macky sax Macky faloogul ñu créé comité directoire ñu ne képp ku nekk membre na nga jox euh, weer wu dee na nga cotiser vingt mille francs pour ñu dimbalee ko Macky ñoom ñi nekk fii di wax yëpp seen ñaari dara mosu cee dugg ñun ñu amutoon dara ñoo doon cotiser par bés man maa cotiser 2008 huitième mois 2008 2011 ba douzième mois 2012 man maa fay weer yooyu vingt mille vingt mille yëpp ma fay comité directoire jox ko Macky ne ko bu ñu àggee 2012 di nga fekk nga nekk présent de la république mu ngi dégg li may wax maa ngi grossier maa ngi lépp moo ñoom ñii di wax yëpp kenn mosu cee joxe ñaar dërëm kon santaasi nañ ko bàyyi te gërëm Macky Sall sant ko. li ñuy wax ni yëpp ñoom ñoo fi gën a ragal li ñuy wax gëmuñu ko koo ci xupp mu daw gëmuñ ci tus